ñoom ñooy waa MFDC waaye tamit opposition bi ñu bëree bari daal ci profito yëkkati ay kàddu jëmale ci ki nga xamante ni moom mooy Ousmane Sonko euh, donc ànduñu benn yoon ci kàddu yi nga xamante ni yëkkati na ko moom moom euh, premier ministre du Sénégal. xam nga li njëkk a problématique mooy ñu ñu ñu dàq ab général. wala mm-hmm. ñu affecté ko opposition bi approprié wu loolu def ko son combat c'est que loolu moo njëkk a problématique. Mm-hmm. un général boo xam ne état ñëw na. en fonction des informations en fonction aussi parce que on ne peut pas vouloir on reprocher à un président de la république yaa ngi comprendre d'avoir nommé qui que ce soit ci ñi nga xam ñoom la bëgg a liggéeyal c'est-à-dire constitution mënu ko mënul may président loo xam ne en fait yow opposant bi yow yaa koy bañal en fait le président de la république a à la pleine latitude de xool Abdourahmane moom a neex moom laay liggéeyal ci moom laa am confiance gis nga dafa am solo mm. en de sécurité étatique mm. de surcroît ñoom opposition bi jël gi jël affaire combat bi en fait def ko le combat de l'opposition rek loolu moom mooy wane ni que en fait y a anguille roche beneen bi mooy la sortie du président Ousmane Sonko bi mu génnee il a tenu ñi nga xam ne nii. ñoom dem nañ alerter Cheikh Yérim Seck. non tudd tuddul Cheikh Yérim jàpp ma ne mm-hmm. aussi moom lay waxal. Mm-hmm. parce que léegi moom peut-être jàpp moom il li dal ko dal rek. c'est-à-dire mm-hmm. jàpp na ni bu président Ousmane Sonko waxee moom lay tontu il veut se coûte que coûte faire aussi une dualité bi nga xam ne mm. moom nga doon wax sànq ni. li mu mm. waxee génn na di di kii et tout mais. Mm. man li ma jàpp mooy loolu ñi si wax bëri na. boo demee Google bind le problème général Kanté adduna bi yëpp a si wax. donc gisuma lu war a justifier moom mu jël wax ji moomale ko boppam. maintenant nag bu dee kaso bi ñu wax. ak pourrir en prison da ko tiital ba mu génn aussi ba jàpp naa ne aussi loolu c'est son affaire donc le premier ministre bi mu génnee il a tenu à alerter te en réalité il faut parfois quel que soit xam nga. suñu appartenance politique ñu mën a accepter ne y a de ces sujets yoo xam deful dara ci champ politique bi les sujets qui relèvent de la sécurité étatique loolu amul amul place ci ci ci ci ci ci débat politique bi surtout des allégations yoo xam ni non fondées dans le seul but de jaxase en fait xelu sénégalais yi ak aussi indi benn instaurer benn climat climat bu bu bu climat de de guerre wala wala de d'hostilité entre avec sur wala à propos de conflit boo xam ni ku ne xam ne depuis des années état bi nga xam ni moom mooy état sénégalais def na son so so son maximum pour jéem a calmer loolu noonu donc le conflit casamançais dafa nekk benn conflit boo xam ne c'est complexe ay nit dee ci Sénégal paye ci en fait un lourd tribut donc jàpp naa ne si boo amee un régime boo xam ni avec un premier ministre qui prend l'engagement et te ni ñun dinañ def le maximum ba nga xam ne incha allah jàmm dina dellu si waat Sénégal ak foo mënti far ak koo mënti doon loolu da nga ko war a apprécier mais waroo insi waroo def benn insinuation. ak wala waroo am benn benn benn posture boo xam day wane ni yow tu tu tu veux jeter de aussi il est la cette responsabilité wala l'État de prendre ses dispositions pour ni que tel sujet tel tel problème du lu ñuy politiser aussi bah tu tu seras traduit en justice donc moom aussi a tenu sur à dire que ni dañ fi fekk rapport loolu dafa am solo mm-hmm. fekk nañ fi rapport am des informations mm-hmm. ci élections yi nga xam ni ci lañ jugee te gis nga loolu il faut nit ñi en fait di analyser les derniers moments de Macky Sall analyse du discours yi nga xam ni moom la doon def am na benn sorte bu mu defoon di wax naan boo leen ñëwul dialogue am na d'autres forces d'autres puissances ñu ngi fi taxaw yoo xam mën nañ jël réew puissance là bu dul opposition bi kan la doon. mais c'est l'armée en lan nga doon insinuer ça ça veut dire que armée boobu ñu ngi woon ci tànku jël réew mi. non man damay ni analyse du discours laay def. Hmm. bu fekkee ni rek cest à moom ci logique moom muy ci logique boobu xalaatoon na loolu li may wax nii li koy étayé mooy la la sortie du du du du président du conseil constitutionnel Badio Camara xam nga ba xam suivre nga ko wala déet def na sortie boo xam tey presse bi yëpp relayé nañ ko il est revenu si si contexte euh, troisième mandat bi ak mm-hmm. l'invalidation du de de la candidature du président Ousmane Sonko ak ci contexte boobu mm-hmm. wax na ni def na révélation que ni le président euh, Macky Sall saisir na conseil constitutionnel ci avis pour def troisième mandat mm-hmm. donc nit kooku noonu demoon na ba à un moment moom jàppoon na ni amul lenn lu ko war a mën a tere mu loolu maintenant nag bi mu ne bi nga xamee ne dem na ba nga xam ne entreprise boobu gis na ni du baax entreprise boobu baaxul entreprise wu jéem a briguer un troisième mandat maintenant bañul woon benn alternative l' essentiel c' en fait ñi nga xam ne ñoom ñoo ñëw muy Pastef tout sauf ñoom te jàpp naa ne ci logique boobu noonu la nekkoon léegi nag ci moment boobu noonu képp koo xam ni moom dugaloon na la wala accepté woon na accepté woon nga teg sa ay sa ay sa sa ay attribut étatique wala sa liggéey wala sa sa de côté ñëw jàppale ko ci entreprise politique boobu noonu après aussi régime bi bu ñëwee bah tu tu tu vas payer les jàpp naa ne aussi jàpp néew ma nag. Hmm. le général Kandé ci loolu noonu la bokk. Ah, mais rek dama dama def dama dama def j'ai fait dama dama dama def dama def corrélation non moom waxul loolu dama def corrélation entre il a fii il a dit que am na rapport bu ñu fekk. Hmm. rapport bi wax nañu. ku nekk li mu doon def ci contexte boobu pour élection bañ am. foofu la yem maintenant nag ku si. élection bañ am léegi bu dee loolu contexte bi dafa ñëw. mu ni rapport bi da ko fay fekk mu ñëw mu limogé mu limogé général Kandé donc ça ça veut dire que général Kandé dafa impliqué ci ci mbir moom. bon en tout cas comme on peut dire que général Kandé est ce que a. a war a ñaaw ci moom. ci ci ci ci ndax liggéey bu corochard bi nga xam ne def na ko ci ci problème mu. Casamance comme comme comme on commentaire est libre les faits sont sacrés mm-hmm. donc commentaire ku nekk mën nga ci def sa commentaire. Eh, ak sa mën nga ci tirer sa propre conclusion. Mm. mais boo jëlee ces ces discours là de de de de de Macky Sall ci ci ay dernier moment am ak aussi révélation bi nga xam premier ministre def na ko par rapport ak rapport boobu noonu. Mm. da ngay comprendre que ni en fait état bi c' est fonction des informations yu mu am ak aussi de sa sécurité ci la jël cette décision là maintenant nag. Mm. est ce que la décision est ou pas personne n'ose me dire non. est-ce que la décision est légitime ou pas. légal on peut moi je peux dire non. pourquoi euh, d'autant plus que général Kandé géré woon na problème mu ba nga xamante ni tey. Ah. Euh, donc même. so waa MFDC wax nañ ko. Hmm. donc ñoom sax ci dañu dañu ñu ngi nekk ci ci situation des braise. Hmm. c'est-à-dire ni guerre ni paix. Hmm. ça veut dire que haine bi nga xamante ne boo xeex bi nga xamante ne mi doon am foofu général Kandé parvenir no gérer ko même ci pays yi nga xamante ne ñoom les pays te nga xamante ne xam nañ ni rébellion am na fa doole ku ci mel ni Guinée Bissau ak Gambie gérer woon na ko d'une telle manière bi nga xamante coow loolu suuloo woon na bu yàgg donc buñ ñëwee dindi ko donc yaa de quoi dire mun nañ wax ko ni ah. nekk na loo xam ne sénégalais war nañ est-ce que am na droit changer ab général. waaw wala am na droit mais je pense que dafa a basé wu ci ay faits dafa war a basé wu ci ay faits. quand même kenn mënu ko kenn mënu ko reprocher en fait que hmm. ni. bi nga def lii ak lii nga ci waroon def. mais mais mais yéen waa Pastef barki démb Ndiaye yéen a reproché. Euh, le président le président le ci choix bi mu def ci Samba Samba Samba Ndiaye. ba waa Pastef. waaw yéen euh, waa votre président. effectivement yéen waa loolu président lu mu def. Ousmane Sonko gis nañ communiqué bi mu génnee xamuñu woon ni Abbas Fall waxoon na lii ci ci ci ci sama jëmm mais dinañ ci apporter ay correctifs dinañ apporter ay correctifs ça léegi la correctifs yooyu noonu quand hmm. le journaliste a posé au président de la République la question lan la wax mu ne na dem ci Ousmane Sonko mu tontu ko donc hmm. en fait dinañ ci jël ay correctifs li mu ah. bëgg li mu war a si li mu a signifier gis nga kuy jaanit xaw ma nuñ koy waxee nettali gént jàmbur. daal hmm. bala ngaa toj mu ñëw sàmba da xam lu muy wëlee ba pare. Hmm. te beneen bi aussi gis nga y' a pas que général Kanté dans ce pays avec tout le mérite man hmm. jàpp naa ni en fait avec tout le respect que que que le peuple sénégalais lui doit. parce que quelqu'un qui a sacrifié sa vie gis nga armée ku ci ne rek askan wi dalaa ameen njukkal. seen dund lañ sacrifié. li gën a cher waxuma sax yeneen yi mais en fait seen dund lañ sacrifié ndax askan wi. mais y' a y' a y' a des milliers am na ay général yoo xam peut-être général Kanté Casamance lañ koy lañ lañ koy tuddal. parce que foofu mooy problème bu gën a sensible Sénégal mais ñan ñan ak yan général en fait ñoo nekk di def d'autres travail colossaux yoo xam ni en fait pour la sécurité de ce pays là. Hmm. ku ne xam na ni en fait les pays yi nga xam moom lañ taxawlool la menace terroriste. gis nañ ñi nga xam noonu la fa mel. Hmm. lan moo tax ba fii nii menace terroriste boobu mënagul dugg Sénégal c'est parce qu'on a des des des une xam ne solide une armée boo xam ni une Euh, patriotique et républicaine boo xam ni sacrifier sa vie jaral na ko mu protéger en fait le peuple sénégalais. Mm. donc gis gëm naa ni débat boobu en fait c'est un faux débat. Mm. nekkul aussi débat boo xam ni dina renforcer la cohésion sociale le président de la république il a pris une décision. Mm. il il a il a jël na benn général am na fu mu ko yóbbu indi na keneen. c'est pas une raison ñu bëgg ci def corrélation entre le le conflit casamançaise pour insinuer que nii parce que Ousmane Sonko rebelle la foofu la dëkk moo tax bëggul général bi donc dàq ko donc jàpp naa ni en fait c'est un débat sensible et dangereux en fait mm. qui n'a pas sa raison d'être un débat sensible et dangereux et qui n'a pas sa raison d'être je pense que euh, doyo luñ ci waxtaan na loo xamante ni bëggoon nañ parce que waxtaan bi am na solo te am na euh, a baax di leen fàttali changé de la stratégie ci fi nga xamante ni moom mooy GPS bu Thiaroye sur Mer ak GPS bu euh, euh, euh, département bu Pikine moom la ñu dalaloon tey waxtaaneek moom ñett ponk benn bi ñeeloon li nga xamante ni moom mooy campagne élection législative yi ñu jëm ak ful bu am solo bi nga xamante ni waa Pastef ñu ngi koy jëree ne ci ñaareelu bi waxtaan nañ jëm ci génnuk président de la République Bassirou Diomaye Faye ñeel wala boog di artu ñi nga xamante ni ñooy yee fitna ci li nga xamante ni moom mooy campagne yi nga xamante ni débuté nañ ko waaye tamit jeexale nañ léegi léegi kàddu yi nga xamante ne Ousmane yëkkati woon na ko euh, jëmale ci euh, ñi nga xamante ni boog ci limogeage génn daal di ci euh, tontu ak ñu bëri ci opposition bi nga xamante ni daal dinañ ciy profité même ci société civile bi gis nañ ci ay nit yoo xamante génn nañ daal ci